ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalal ak ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee étudiant sénégalais yi nga xamante ni nii dañuy def lépp ngir mën di wóyal seen njàng fi nga xamante ni nii mooy bitim réew étudiant yooyu itam di faral di jaar ci ay agence ak ay yeneen bërëb ngir mën a wóyal li nga xamante ni mooy seen yéene googu noonu ñenn ñi sax dem ba ñu leen di nax maanaam di lekk seen xaalis te ñi koy def mooy ay personnes mal intentionnées yi nga xamante nii dañuy profité wu ci li nga xamante nii mooy bëgg-bëggu étudiants yooyee ndaw yooyee ngir lekk li nga xamante nii mooy seen xaalis di leen digg ay préinscription alors que loolu lépp dara du ci dëgg. ci noonee nag am ñoo xamante ne nii dañu wut yeneen méthode yu ñuy jàpp ni xëy na peut-être moo gën a wóor maanaam jaar ci voie légale yi. manam ay structure yo xamanteni ni France moko fi tek parce que France la plupart mo nek destination bi étudiants sénégalais yi di farli di ëpp di dem léegi ndaw yoyu dañu farli di dem ci structure yu mel noonu nga xam France moko fi tek en collaboration ak état du Sénégal rawatina ministre de l'enseignement supérieur ngir yombal ndaw yooyu seen njàngum bitim rew mais li ñu seetlu ci mbir moomu moy ndaw yooyu nga xam ñi ngi jaar ci yoon yi nga xamante ni c'est des voies légales ngir am lii di prescription non seulement la plupart du ñu am prescription mais tabit France di bopam da ci profito pour gagner ay milliards at bu yalla sak ci ndodd étudiants sénégalais yoy noonu. ci vidéo bi dañ leen di expliquer loolu lepp naka lay démé ngeen comprendre procédure yi nu muy tëddee frais yi ak France ñaata lay gagner ci ndaw yooyu nga xamante ni seen yéene du lenn lu doon dem bitim réew wóyal seen jàng amaana ñibbisiwaat Sénégal ngir jëriñ seen réew. balaa ñuy détaillé nag vidéo bi dañuy contextualiser d'abord parce que ci wàllum préinscription maanaam inscrire ci benn université bu nekk France bi nga xam ne mooy destination bi étudiants sénégalais yi di ëpp li ñuy amal France ba mu comprendre loolu dañu teg fi nga xamante ni nii mooy Sénégal lu ñuy dippee campus France campus France dañ ko fi teg muy bërëb wala structure boo xamante ni liy liggéeyam mooy traité demande yi nga xamante ni étudiants sénégalais yi ñoo ngi koy def te bëgg dem bitim réew li fa seen jàng campus France boobu noonu réew France moo ko teg ci lëkkaloo ak ministère de l'enseignement supérieur bu Sénégal lépp rek ngir ndaw yi mën di suivre procédure yi ci ni mu gën a yombee teg ci itam am chance mën a dem matale seen yéene. mais li nit ñi comprendre ci organe bobu nga xamanteni dafa teunku ci ambassade de la France parce que nit ñi loolu la ñu comprendre campus France dafa attaché wu ak ambassade de la France té li ci nit ñi comprendre moy organe bobu muy campus France day doli xaalis li nga xamanteni moy mooy état français ci loolu lépp ci ndodd étudiant sénégalais lañ koy tibé preuve rek bi ñu leen di jox benn la année académique bi nga xam ne mooy 2018 2019 maanaam bi nga xam ne moom la ñu suivre nii en cours Campus France jot na lu toll ci vingt et un mille demandes d' étudiants yoo xamante ni enregistré na leen maanaam ñaar fukk ak benn junni étudiants yoo xamante ni inscrire nañ pour mun a am prescription fële nga xamante ni mooy France te ci procédure yooyu noonu Campus France encaissé na ci daanaka 10 milliards de francs CFA ci benn at kese daanaka sax modulat.

dañuy ñëw d'abord ci procédure yi parce que pour xam somme boobu fu mu jógee foog nga comprendre bon procédure la ñu jaar pour étudiants yi nga xamante ni dañu bëgg a dem fi nga xamante ni nii mooy France jàngi fa wax naa ko sànq toll nañ ci vingt et un mille étudiants maanaam ñaar fukk ak junni étudiants ak benn yoo xamante ne nii dañu bëgg a dem poursuivre les études à l'étranger léegi nag candidat bu ci ne bu bëgg a dem ci université wala école wala institut français da war a joxe lu toll ci 50 000 de francs CFA. 50 000 euros, moins net frais de traitement de dossier. Et si vous qui inscrit, vous avez 35 millions de francs CFA. Moi, représenter ce que vous savez vis-à-vis. Les pour calculer son madame, 21 000, moi, nombre d'étudiants qui inscrivent pour aller en France. Si multiplié par 85 millions que vous savez, moi, frais de dossier et frais de visa que vous savez, si vous avez beaucoup de choses, vous avez un milliard sept millions de francs CFA yo Campus France da koy encaissé ci étudiants sénégalais ay ndaw sénégalais yi nga xamanteni ni ñom maigre moyen lañu am ñu la pour am pour def préinscription bi. mu nekk loo du siècle sàcc ak naxaate ak mënul weesu ñenn ñi peut dinañ ne jar ko quatre-vingt-cinq mille du dara rawatina boo ko amee di nga mën a dem ci école wala université wala institut français boo xamante ni di nga mën a am jàng bu qualité doo jànkonteel ak ay grève ak yu ni mel mais problème bi mooy ñi nga xam ne ñooy demandé muy vingt et un mille yi du ñëpp ñooy am prescription loolu nit ñi war a comprendre du ñëpp ñooy am te ñiy am sax ci prescription yi représenté wuñ dix pour cent ci ñi nga xamante ni ñooy inscrire te leneen li ci gën a graaw mooy frais yi nga xamante ni ñoom ñi ngi koy def pour am prescription bu ñu amul prescription boobu noonu du ñu leen delloo seen xaalis amul suma te li gën graaw garaaw ci mbir mi mooy yow dañ lay demander nga def frais de dossier nga def ko mais tamit dañ lay demander frais de visa alors que yow amagoo sax prescription balaa ngay def ay frais de visa donte c'est moins cher mais na nga bàyyi ba am prescription ba pare te loolu lépp bu ñu la joxul prescription duñ la delloo sa xaalis da ngay toog loxoy neen xëy peut-être suba nga amaat yaakaar ñëwaat déposé waat. ba tey ci nombre bi nga xamante ni moom laa leen doon wax ci limbu bu néew bi nga xamante ni ñooy am prescription pour dem jàngi France vingt et un mille nga xamante ni nii mooy chiffre muy ñaar fukk benn yi nga xamante ni ñooy def demande prescription en France ci limu doomi aadama yooyu noonu 5000 candidats kessé ñoy am li nga xamante ni moy mooy prescription maanaam ci ñaar fukki junni ak benn yi nga xamante ñoy ñooy demandé juróomi junni kese ñoo ci am té loolu information bu wër la parce que kiko joxé moy conseiller à la coopération et à l'action culturelle bu ambassade bu France bi nek fi nga xam moy Dakar muy Laurent Perez Vidal mi ko xamlé won ci benn inauguration école ingénieur bi nga xamante ñu ko ibbi fi ci Dakar mom mo xamlé ni ci 21000 et demandes yi 5000 kessé lañ ci accordé li nga xam moy mooy prescription loolu limi muy moy dina am 16000 candidats 16000 étudiants sénégalais fuk ak juroom ben juni étudiants sénégalais yo xamanteni dinañ def sen inscription def lepp té dañu jot deurm lim bobu nonu bok calculé manam 16000 étudiants ku ci nek joxe 85000 bok calculé ci xaliss da fay nek 1 milliard 360 millions de francs CFA alol bob bepp rew france mo koy jël du delu ci étudiants sénégalais yi nga xamanteni ni jotuñ dara jotuñ inscription. amuñu visa ñi nga xamante ni nag am nañ chance am prescription ngir dem wéyal seen jàng fi nga xam ne mooy France dañuy dolliwaat trente mille de francs CFA yi nga xamante ni nii mooy remplir wala matale visa bi nga xamante ni nii moo leen di permettre ñu dem France loolu boo ko calculer maanaam ñi ñu jot a may cinq mille yi nga xam ne am nañ boo calculer li ñuy rapporter campus France mi ngi toll ci cent cinquante millions de francs CFA après bu ñu defee segg bi tànn ñi nga xamante ni ñooy dem. xaalis boobu noonu muy cent cinquante millions yi boo ko doolee ci un milliard sept yi nga xamante ni moom la ñu jëlee ci ñaar fukki junneeg benn étudiants yi nga xamante ni defoon nañ demande pour jàngi France boo ko xaymaa lépp toll na ci un milliard neuf cent trente cinq millions de francs CFA wala lu ko ëpp. alal ji ci yëpp campus France moo koy bénéficié wu ci ay ndodd ndaw sénégalais. caayinto di étudiants yi nga xamante nii ñu ci bari seen bourse kese la ñu yaakaar ñu jël ko ci ñoom du ñu leen remboursé di leen dundaloo yaakaar ci dara ci situation bii nag liñ ci mën a jàngal rek mooy bu fekkee ni dafa am ay étudiants ay ndawi sénégalais yi nga xamante ni dañu bëgg a dem bitim réew jàng ji parce que jàpp nañ ni xëy na peut-être seen biir réew gisuñu fi loo xamante nii dina tax ñu yaakaar ab avenir boo xamante ni tekki lay jur. parce que Sénégal rek ngay gis ku am bagam dugg université té du xam ëlëk la lay doon parce que suñu système enseignement bi mo baxul lañ ko wax té dé erreur bi gëna mag fi ci Sénégal moy da ngay jàng lu ëpp fukki at ak juróom nekk ko ci bangu école yi pour am bac té bac bobu nonu boo amé mëno def dara amoo benn métier xamoo dara te normalement li nekkoon yoon mooy ku am sa bag da nga war a am qualification professionnelle maanaam am loo xamante ni mën nga ko ci benn domaine. avec loolu noonu même bu fekkee ne ëllëg bëgg nga dem bitim réew jàng ji sax dangay ngay dem gën a yaatal sa xam-xam ngir dellu si waat sa réew jëriñ sa réew. mais malheureusement suñu njàng mu bi maanaam suñu enseignement supérieur bi dafa démodé nañ ko dépassé de telle sort que jeunes yi nga xamante ni ñoo ci ne amuñu ci yaakaar tax jàpp nañ ni benn solution moo am mooy dem bitim réew France pour wóoyal seen njàng yéene boobu nag nga xam ne am nañ ko ñu ci bari ci la ñuy jaare di leen nax di lekk seen xaalis comme campus France te loolu lépp en complicité ak suñu njiit yi parce que condition yi nga xamante ni moom la ñuy obligé suñu étudiants yi ministère de l' enseignement supérieur bu Sénégal daf ci waroon jóg xool naka lañ koy allégé wala sax bu fekkee ni joxuñu la préinscription joxuñu la visa nga am possibilité ñu rembourser la sa xaalis waaye comme niñ koy waxee rek tey ku la àll li nga xamante nii mooy ay bët fu mu ko neex rek ngay xool puisque ñun amuñu université yu baax bu fekkee ni dañuy dimbali pour may suñu ndaw li nga xamante ni mooy enseignement di qualité bu baax daanaka du ñu am lu bari lu ñuy wax li ñu war a def kay mooy comme parce que tout le ay nit lañ ay doomi adama lañ ni ñun dañu def comme am ay université d'excellence yo xamanteni suñu ndaw yi duñu gis solos dem di jéggaani nañ ko def question audace la ak question ambition et malheureusement nous suñu njiit wala suñu état yi amuñu ambition loolu